sëñ Moustapha Ndiaye Al Karim di wax askan wi ne leen mën nan abonné Tektal TV boo duggee YouTube boo defee Tektal TV rek abonné dinga def Tektal TV senegal Tektal TV Sénégal Tektal TV bi mooy collé Sénégal bi ñëw topp ci ñu abone waaw loolu daal maa ngi ci gën a soñ ñëpp surtout nag ñi nga xamante ne bëgg nañoo bàyyi xel mboole émission bu ñu def. Mhm. mi ngi ci biir Tektal TV Sénégal ak Tektal TV. ñaari ñaari ñaari seen YouTube yooyu yëpp ñoo ngi ciy soññ nit ñi ñu bàyyi ko xel. abonné ci da ngay bës fu xonq fi rek. fu furuus fi rek ngay bës. kon waaw flash benn kon boole doole ci it nag euh, Facebook bi. page TV l'officiel. waaw mi ngi noonu kon. kon ñëpp nga fa samay photo nga fa kër Touba ak. Hmm. Janatoog <laughs> Fass Mbao ak hmm. ñëpp nga fa. leeral leen ne abonné nag kenn du ci fay dara doo fay ñaar dërëm bu la fay sax doo fay pour wax leen lu leer. abonné wu jëruñu ko dimbali de njëriñ moo fi nekk Tektal TV. waaw kon mi ngi noonu nañ ko bàyyi xel ñun ñëpp daal doo fay dara. lépp loo bëgg xool di ko xool di ko gis kon li ñu jël ko suñ connexion yi di ko seeraane e, fooy caaxaan yi nañ ko seeraane Tektal TV di njariñ lu àndut ak lor. Tektal TV Tektal TV Sénégal abonnel moo nekk noonu bés fu ruus bi bës flèche boobu mu dem doo ci fay dara bu nu la ci fay dara doo ci fay dara àdduna wërngal këpp Tektal la ni seetaan njëriñal neen